dikkati naa yor sa paaka ku saxle nga ni tàppit daal di dagg tribune yéen kaay ne ma lii la sénéra nekkee ci réew mi yéen kaayub dee média bi naan man coupé ay signal coupé coupé coupé dagg dagg dagg ba mar day taali tribune yéen kaay naan man xam nga wal Walf moom tëjoon nañ ko fi weeru yàlla ñu daal di fii tëj Walf Fadjri cour suprême naka tuatekaay bi gën a kawe gi daal dinay xamal sénéra place am daal di koy corriger ne la nga def Walf Fadjri ma ñu la teguwul ci dëgg wul ci yoon yéen kaay bi naan man gannaaw ba mu tëjee Walf Fadjri moom sénéra barki démboo njaay la bind di xupp yéene kaay bii di la tribune naan kon saa bu ngeen yeewoo ci seen patron Bougane Gueye Dany ngeen di xëye di ko bind di ko defal propagande ci waxtu woo xam ne soobagun ci campagne électorale waxtu woowu nga xam ne nag ñi ngi bind waa tribune naan leen la ngeen di bind ci Bougane dafa bëri yéene kaay bi naan man ndax Babacar Diagne fàttewul bind nag yéene kaay bii di Le Soleil xanaa bu ko fàttee rek ñu fàttali ko moom Babacar Diagne ni ko yéene kaay bii di Le Soleil ci président Macky Sall lay xëyee moom président Macky Sall lay gontoo saa bu xëyee ma nga ca candidature bu Amadou Ba bi wala it waa Benno Bokk Yaakaar seen kàddu Le Soleil naan man bul sori moom président makki Sall ma nga woon ca gaay yi nga xam ne dañuy def ay saytu jébbal leen téeméeri million ñett ji ñoom ñu daal di koy séddoo Sall naan leen coow li ci réew mi wàllug recherche ci boppam lañ bëgg teg ci kanam turbine yéene kaay naan kon ma ba Babacar xanaa doo xool leetar wa nga jébbal turbine yéene kaay fexeel ba bind bu ni mel te boo koy jébbalit na nga ko jébbal yéene bii di Le Soleil ndax lu turbine wax ci Bougane rek wax nañ ko ci candidat bii di Amadou Ba ak président Sall waaye tam wax ko ci Benno Bokk Yaakaar 24 heures yéen a kaay naan maan ci fulla ci la ay avocat Ousmane Sonko ñaabar ñaabar yi maan yéen a kaay bi fu nu jëm ñu naan maan xanaa ëttu attekaay bu kawe bi fas yéen nag jébbal ab rabat d'arrêt ne leen la ngeen atte Ousmane Sonko yabalaat ko cib tribunal ma ni la lii duñ ko nangu maître Ciré Clédor Ly ak ñamu àndal ni ki démb ci talaata ji la ñu daal di yóbbu loolee maître Saïd Larifouné ñun lañ leen wax mitiwul de dañ na leen ma ni la droit droit kese ak ak ko respecté te buñ ko war a respecté ci mu gaaw ndax fichier électoral boo xam ne dafay sàmm ak ak yelleefu ab citoyen sénégalais boo xam ni mën naa doon candidat maître Babacar Ndiaye naan leen sénégalais yi nga xam ne gis nañu audience uk aljuma ji te ñu ne le juge Sabassy Faye wax ca sigi coor nañ ko tàbbal géej mu doon nag delloo si turug son Sonko ci liste électorale yi ku nekkoon ca saal ba xam nga ni am na kenn koo xam ne bokkoon na ca atte ba waaye ba nuy jébbal arrêt bi moom xaatimul te loolee nag jafe-jafe na koo indi ci wàllu yoon te la ñu woon lépp mënees naa tàbbi géej ndax lii ma jambal jaan ci la mandat yéene kaay naa leen Ousmane Sonko du bokk te it laa leen di wax ne Bassirou Diomaye Faye du bokk waaye candidature Amadou Ba it daanaka bëñ bu yànq la moom ma jëmbal ci l'observateur naan xam nga benn benn yi nga xam ne ñooy génn ci bennoo di sànni xeer Amadou Ba daanaka benn benn bu ñu dajaloowee mën nañu say te buñ ma teeb say mën nañoo gàntal Amadou Ba attention ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne benn benn yii di génn di xaajaloo ci bennoo mënul métti ci Amadou Ba mën naa métti ci moom à tout moment Bokar Jong cadre APR ci biir tribune yéene kaay ne ma la Parcelles Assainies fekkal ñeent ñuy dox ñett ña boo leen laajee dañ naan bëgguñu Amadou Parcelles Assainies bii di fiefu Amadou Ba laa la wax de fii nga xam ne Amadou Ba mani la fii la fekk baa ñeent ñu taxaw di waxtaan rek laajal ñetti ña nee leen yéen seen xol ko ngeen ci bëmëx daañu la tontu lépp ba mu des Amadou Ba xam nga koo xam ne fiefam fa mu yaakaar wallu ndax nee ñu naar boo ko mbéjee gémmiñam ma ngi koy walis jëmale gànnaar ndax gànnaar googee la yaakaar am wallu moom Amadou Ba Parcelles Assainies lay ñaabar ñaabari normal Bocar Diongue naan luy problème bi diggante Amadou xolu sénégalais yi lan mooy problème bi te mooy yéen a naan kon en tout cas problème mu Sénégal Aliou Sarr nee na bés bu ma nekkee président day saafara yëpp fa yallaahu moom jiital coalition Aliou CAP 2024 ne bës mu ngeen ma falee yéen sénégalais yi danaa fexe ba lépp loo xam ne day soppi sunu meññiteef yi nekk ci réew mi mu nekk minière wala énergétique te ñu waxee ko ci suufuk Sénégal gi man Aliou day may fexe ban soppee ci Sénégal gii bal du tàkk sagar du ma danaa fexe ba senegale boo xam ne daanaka yóot nga ñaar fukki at ak juróom nga am dëkkuwaay te doo ci amuk coona danaa tàqale njiitum réew ak chef de parti président de la république jiite jiiteeti conseil supérieur bu magistrature su ko defee yoon mën a demal ca gël guyam amul lenn loo xam ne man ni la état dina ko mën weñ loxol yoon ngir mu defal ko la mu bëgg justice jaare fa am indépendance fa yallaahu taxawal ab cour institutionnel boo xam ne daanaka mooy ngemb sunu institution yépp président ba ay magistrat ni moom daal di koy fal libération kon balaa ngay sori xamal ni waa site juste di syndicat ñiy liggéey ci wàllu yoon soobu nañu ci grève Aliou Sarr ci li te moo yéene kaay naan kon ma yigli rek xam nga jafe-jafey sénégalais yi buñ ko saafarawul daanaka dañuy dooni complice ndax ci biir réew meeg ci biti réew daje ay ndaw ay soxna ay mag ay baykat ñoo xam ni daanaka ay chômeur la ñoo génneen ñiy wane seenu ñaxtu jàpp ni Sénégal gii buñ ko dindiwul ci fi mu nekk nii lambaay dana ñaaw wala ca dande mayo gaa yi nekk ca maatam naan ñoom ñay bay jafe-jafe panneau solaire la ñu mën naa tax ñu am ndox mu sell ca dix-huitième Alioune naan tase naa faak soxna soo xam ne daf ne ma lépp lu dal Sénégal yéen a ndax yéen a fàtte sénégalais yi te kon coppite moom mënta ñàkk ci mim réew faaw ñu juboole waat sénégalais yeeg seenu réew l'observateur naan air Sénégal dey ma nga ca daar daar daal dina ci soobu Walf Quotidien jox kàddu Cheikh Bamba Dièye Cheikh Bamba Dièye naan en tout cas saafara Sénégal day du yomb ndax nag xam nga ku tëb dal cib xal dese na la géneenu tëb waaye moom dañoo jonkon daal di toog waaf ci biir xal yi mu ñuy lakk te mënuñoo jóg xam nga bu nekkee ci réew moo téeméer ci milliardaire la am te milliardaire yooyee di ay fonctionnaire kon yaa problème tribune yéen kaay naan en tout cas Sidi Lamine Niass ma ngay wax ak sénégalais yi ci tànneef gi gën goo xam ne mënees na koo def ci élection présidentielle yi Sidi naan balaa ngeen a fal kenn ci réew mi xalaat leen demb senegal xalaat teyu senegal waaye ëllëg fa nga xam ni fas ngeen ko yéen askan wi ñaabar ñaabare yóbbu Sénégal ndax yéenay tabb yéenay tebb yéenay tànn yéenay folli le thème mooy yéen kaay naan man en tout cas président Macky Sall moom moo ko fal ki démb jaaram ga ca assemblée nationale député jéem moom Fatou Diané Gueye moom lañ doon wote di bu ministère de la femme yéeni kaay bi naan kon daanaka député yi démb yépp ànd ci soxna yi nga xam ne ñu ngi leen di jox gëdd ci mim réew rawatina nag ci langu politique yi nga xam ne président Macky Sall dafa ne fu góor taxaw na ko jigéen feelu loolee tax ba Sénégal jox ko cër ci bitim réew député yi rafet lu taxawaayu Fatou Diané ci financement yi nga xam ne ñi ngi koy def waaye tam matériel yi nga xam ne ñi ngi koy jébbal soxna yi rawatina yi nekk ci département bu Guédiawaye Sédhiou Bounkiling waaye tam soxna yi nga xam ne muccoon nañ ci gaal ga suuxoon ci bitenti député yi rafet rafetlu maison de la femme bi nga xam ne daal nañ koy taxawal ca ginnaaw raay koppar nga xam ne jébbal nañ ko ngir ñu daal di ami financement waaye tam tuut tànk yi nga xam ne deesu leen fàtte ci mim réew doléance su député yi daal dinay am ci yenn gox goxaan ci réewum Sénégal Fatou Diané Gueye naan leen ndànk rek fi mu ne daal saafara jigéen ak tuut tànk dees na ci taxaw ci réew mi daar daar réew mi ko dajee naan président Macky Sall kay la mu wax daar daar mooy daal dinay am ci daara yu kawe yi l'info ma ngay matu ca naan caaxaan jeex na dëgg des université yi ci réew mi du xeexukaay arène ba ñu fay bëree université yi sàkkukaayu xam-xam la kon nañu moytu xeex geeg agression yi nga xam ne ñi ngi koy amal foofee te jëfee fa jàng leneen lu dul jàng yàqum tàng la vox populi naan maan lu toll ci ñaari junni juróom-ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom kilogramme ci xeetuk sinébar la nu jàppee ci port otonom bu ndakaaru boo koy xayma téeméer ak ñaar fukk ak juróomi milliards ci suñuy koppar la libération naan maan réew mee yàqu benn étudiant benn footballeur ak benn artiste rappeur ñoo jàpp benn xale bu am fukket ak ñett di ko salfaañee